salaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan euh, dakaar Media TV man la seen xarit ñëwati naa Diaw gars yi maa leen di nuyu di tey ma am gan goo xam ne jóge ba Kédougou ñëw ñëw fii nga xam ne mooy Dakar xaw ma nag lu mu fi wuti xaw ma élection yee ko indi waaye daal xam naa li ko yëkkati yombul ñu ko naan sëriñ Abdou Lahat Mbacké. Mbacké salaamaaleykum wa wa barakaatuhu. Mm. Eh, Diaw ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp. Mm-hmm. di nuyu waa Dakar Media TV yëpp rek. Mm-hmm. di nuyu waa Sénégal yëpp. di mm-hmm. ñaan réew mi suñu borom def fi jàmm. élection yi ñuy dëgmal suñu borom ka gën ci moom te gën ci réew mi suñu borom jox ko ci ndam lu sedd guyu di nuyu waa Kédougou ga mu jóge. di nuyu waa Touba Mbacké gi xam ne fa laa fekk baax. ndeysaan bisimilah. Euh, sëñ Abdou Lahad Mbacké élection yi tàng na de. waaw kéemaan la koy wax. Ah. waaw kéemaan la. <laughs> te ku ne sëñ Abdou Lahad Mbacké. ku ku la xam. waa mm-hmm. Kédougou xam nañ la bu baax a baax a baax. Euh, xam na si seet. Mm-hmm. ni nga mel si seet daanaka néew na jamono gi nekk nii sëriñ di ko waxee ak kóolte bi nga siy àndal seet ban seet moom moo si wér ak ban seet ngay def. waaw Diaw euh, li nga wax lu wér a wér la. Mm. ndax euh, seet. Mm. dafa bëri ñu koy wax. Mm-hmm. te doo du ma ne mënuñ ko de. Mm-hmm. waaye kon nan ko war a defee defeewul noonu. Mm-hmm. te yàlla dogal na ñun. buñ lay seetal. dañ lay seetal ba wax la sa tabian. mooy naari yu nga. wala hawaa yu. wala maa yu. wala turaabi yu ban nga ci doon ndax nit ki. génnul ñeent yooyu. wax la sa sa tur yow. ban saara dëppoo ci alxuraan wax la. lan maanaam say mbir lan moo koy doxal ak boo bëggee muy dox yan waxtu ci ngi ci ci ci ci koy jug. Hmm. maanaam maanaam lu ci nekk rek. Hmm. dañ dañ la dañ la koy faram faram faram. fàcce ba ba mu leer. ba mu leer nañ nañ wax la sa tabian. Hmm. ndax nit ki li jiitu mooy nit ki bala nga ko mën a ñaanal fa nga seetal ko. dëgg la nit ki boo ko seetalut ba xam ban tabian la doon. mooy base bi. ban doo ko mën a ñaanal. Mhm. ndax tabian ci ngay mën a sukkandiku. Mhm. ba man ba ba man koo ñaanal. Mhm. ndax bu dee ndox la nga xam ci ci wàllu fi ñu koy ñaanal bu dee suuf la noonu. bu dee ngelaw noonu. bu dee bu dee bu dee tàkk-tàkk noonu. kon Euh, ñun bu ñu lay seetal dañ leen la ko faram fàccee loolu ba wax la saw saar ci alxuraan. Mm-hmm. wax la euh, sa tabihan. Mm-hmm. wax la. Mm-hmm. waxtu yi nga xam ne sa tabihan ci lay dox bis bu nekk ndax bis bu nekk nit ki sa tabihan bis bu nekk daa am heure bu mu cay dox. Ah, ak heure bu mu dox. d'accord bis bi tey comme comme exemple tey ci mardi. sa tabihan diggante 11h mën na ci 11h man na ci mën na ciy dox euh, waxtu wam ci dox. ak midi du bokk. midi heure ba mu ciy dox midi tey ak suba midi ba heure mu ciy doxaat du bokk. d' accord loolu nag soo ko xamul. Mhm. pour nga ñaanal nit ki ay mbiram dox du mën a du du am. waaye du yomb. dëgg la loolu lépp buñ lay seetal. Mhm. dañ la koy faram fàcceel. Mm, d' mhm. accord d' accord d' accord kon li may dégg ñu naan diw tabi xam safara la daa war a génnee saraxu ceeb yàpp loolu doo ma si mën a tojal tuuti rek. waaw sarax moom lu am la. te lu am solo la. waaye tamit nit ki ba comme li ma wax léegi rek bala ngaa mën a xam ay saraxam yam war a génn dëgg-dëgg faaw nga seetal ko te boo ko seetalee faaw nga mën koo seetalee comme yii mën a wax nii hmm. soo ko soo ko munut hmm. mën nga koo génneloo sarax de hmm. waaye sarax ba tax ba baax ci ay mbiram te tax ay mbiram di dox moom du ko du du ko mën a xam damay gis ci TikTok bi ñu ne jékki-jékki noo tudd diw laa tudd yow génnal sarax bii ak bii ak bii daanaka loolu est-ce que du gàllankoor doomu aadama wala tëj ay mbiram. nit comme li ma wax léegi rek. Mm-hmm. nit du jékki-jékki rek ne génnal sarax nangam rek nga dem génne ko. d'accord nit bala nga ko génneloo sarax. Mm-hmm. war ngaa xam turam ak turu waajuram wu jigéen. Mm-hmm. nga alaat ko am loo cay dolli. ba pare. xam moom fi mu féete nga door ko mën a génneel sarax nangam ak nangam ak nangam dëgg la nit ki boo xamul loolu mhm. mënoo ko génneeloo sarax dëgg la waaw dëgg la xam naa gars yi dëgg da may jégg rek ndax duma mën a xóot bu baax a baax si waxtaan bi ndax dafa jóge ba Kédougou ñëw ndax kilifa bu mag ko indi indi fii hmm. donc ma sàkku rek waxtaan ak moom si benn 10 minutes ak 15 minutes seen bi su jógee si loolu damay ñëw si xale yi jigéen ñi maanaam sëy yi tas bari na hmm. man xaw ma rab a ko waral xaw ma bu bon xaw ma daal lan la lan la mooy problème bi. waaw loolu moom danañ ci sawar lool ndax liñ ciy am ci ay kaa dafa bari. ah waaw li yi nga wax nii da ciy am. Mm-hmm. rab daf ciy am. Mm-hmm. ay seytaane da ciy am. Mm-hmm. waaye li ci jiitu tamit. mooy mooy bu ñuy dugg jib sëy dañ ko dut xool. te mag suñ mag ñi fi ñu rawee woon mooy. sëy buñ ciy dugg ñoom dañ koy xool. bu ajoo ay ñaan ñu def ciy ñaan. su laajee sarax ñu def ciy sarax. dëgg la bu dee dafa ndaw si dafa am gaaf ñu toj ndax jigéen boolu yaas bi na ma yàlla jégal day am gaaf du gaaf goo xam ne nag moom dafa hmm. nekk ci moom ba ko mu sëyal day am gaaf waaye hmm. man mënoon naa di bëgg soxna soo xam ne suñu diggante nag moom hmm. dafa am gaaf te boo keneen bëggee gaaf googu mën na caa bañ a nekk d'accord li lii tax nag yooyu yëpp tas yeeg yooyu yëpp du ci am loolu lañ koy tojtal dañ koy tojtal mhm. moo tax ab sëy ñu warees koo xool mhm. ab sëy ñu war caa def ay ñaan mhm. di ci moytandiku nag yu bëree bëri dana tax tas gi di am lu bëree bëri doom ndax mag ñi seeni sëy daawuñ ko sëy nii rek bàyyi ko nii rek di dem comme façon takkante ci jàkk ji rek léegi ku ne dem sa yoon déedéet sëy day day am lu koy lu koy ñoŋal. dañ koy ñàkk am lu koy téye waaw ñàkk ko. <laughs> ba nga xam ne dara du ko mën a roor. mooy mm. waral sëy yi di am yu ci baree bari ndax ñu ci bari xaw a tubaab tubaab lu moo leen jàpp. Mm. ba gëmuñ yu baree bari. ci seen ko yóbbu ko appartement wala. waaw waaw seen débutant duñ gëm yu bari débutant bi nag. débutant mais nag buñ demee ba mbir yu kii nag leen loolu dañ ciy am ay gars yu bari. ñu soog ci biir nag. <laughs> ñu ñëwaat man de sëñ bi sama sëy bi nii kii na sama jabar kii naan sama jëkkër ji te fekk lañ doon bañ a njëkkee suñ ko njëkkee woon. Mm-hmm. loola man na leen cee bañ a fekk. Mm. moo tax nan ni xamaat liñ doon lu mooy mooy dañoo doon ay jullit doon nit ku ñuul mhm. cosaan yi fi maam yi bàyyi woon mhm. bu ñuy takkab sëy ak bu ñu mhm. tëkkeeb sëy mooy xool ko mooy ñàllu ci mooy ñag ko nan koy defaat te maa ngi koy digal sama di ko digal ñëpp loolu mooy waral tas yu bari yeeg cooy histoire yu bari yi dëgg la euh, sëñ bi mbiru rab ku la xam xam la si rab ni mi ngi si mel daanaka sauvé nga ñu bari si domaine boobu rab nan lay def si nit surtout maa jigéen la gën a yàpp lool maanaam rab luy yàq lu bëri lu muy yàq mi ngi noonu. Hmm. booy xool lu yàqu lépp lépp lépp lépp quatre-vingt-quinze pour cent yi rab a koy yàq ndax rab. Mhm. dana tëj nit ki wërsëgam rab dana la tëj doo mën a am doom. Mhm. rab dana yàq say mbir yàq yoo xam ne. Mhm. maanaam lu dul moom yaakaar naa mënu ko. waaw maanaam daal moom mooy base bi nga xam ne. Mhm. lu ko neex yàq nit yàq waaw moom moo lay moo ni moo maanaam bu la duggee ba dugg la dëgg-dëgg moo lay mhm. conditionné maanaam li bëgg ci yow rek. Mhm. loola mooy am. boo tax bu la bëggee bu yàlla bu mu doon nag mu doon rab boo xam ne du jullit. man nga cee hmm. def mën ngaa dajale junni sëriñ hmm. pour ñu ñaana la ci tàqale laa moom jafe na da ngay gis léeg-léeg hmm. ku ne la dem naa ci nangami sëriñ dëgg la waaye ba léegi dëgg la amu amul changement am naa si cas waaw waaye nag euh, rabit dafa am ñoo xam ne yàlla dafa dogal ñu man ko am ñu ko mënul gis nga rab ku wax ne la dama koy faj comme mu wér mi nëb góom ba mu gëm waxu la dëgg rab mu nuy ah, tuxal la Hmm. ndax boo gisee ñu ci bari boo boo buñ lay ñaan looram nga ne jënd leenam xar wala nag wala hmm. bëy wala nàngam hmm. loolu mooy da koy génn ci nit ki fexe koo dugal ci ci ci leneen doo koo ñaanal jox mu sangu waaye rab ku ne ku ne la jox ma nangam rek ma ñaanal la ci dana lekk sab xaalis jox la nga sangu waaye rabu du tàqalikoo yow rab da koy da da nga koy jëlee ci maanaam ñooñuy di faj rab dañ koy calmer mais si nit duñ ko dindi da nga koy ci jaww mi dugal ko ci mala bii ah. mu tàqalikoo moom définitif nag moo tax fajkatu rab dëgg-dëgg muy bëri lu muy tuur deret parce que da nga koy génne si jaw waaw dem tuuboo si benn place bi waaw boo gisee tamit ñu naan boo gisee tamit ñu ne fajkatab rab uh-huh. su fekkee ni du tur deret uh-huh. comme di fajal di fajal nit ki rab uh-huh. te laa joogam xar walaw nag boo ko du def te faj ko allah kulli an yow sëriñ ba sa njaboot dana wëlbatik ñoom rab moom allah kulli an day jógee ci nit dem ci nit rek waaye du génn ci ni dem noonu définitif mënta ne. mënta ne déedéet mënul ne. dégg naa dëgg loolu mënta ne. dégg naa dëgg wallaay la balaa waxtu bi dañuy xooj euh, sëñ bi dañu jub si ay élection yu doy waar. Mm-hmm. élection yu doy na waar trop te ku ne élection ak ndaw yi ne kaaraange sëñ bi lan nga ñu mën a baaxee si kaaraange dëgg-dëgg nag. gis nga euh, sëñ Diaw. Mm-hmm. kaaraange ndaw ñi dañ ko wan ginnaaw lool ku caaxaane mhm. mm. ndaw lu la ci ñàndu mm. li mu lay wax mooy wërsëg li mu lay wax mooy bayre waaye nit olof ne bala nga ne naam ne fa dëkk la gis nga ñi amul kaaraange képp ngay gis élection yi am mm. wala manifestation am ñoom ñoo cay faatu ñenn ñi ñoom li ñuy tëj ci kaso yi ñi ci am kaaraange dëgg dëgg dëgg mën ñoo def mbir moom ba mu ba ba mu ne weng mm-hmm. mais kenn du leen ci tudd dëgg la loolu lépp seen kaaraange ko waral dëgg la nit nit nit nag doomu aadama soo ci nekkee surtout jamono ji ñu toll nii. Mhm. nga xam ne iñaan gi bëri na. Mhm. nit ñi bàyyeetuñ yàlla dara. Mhm. ku ci nekk doon ndaw. te bëgg a nekk mag bëgg a am dara. faaw nga ñàkk sa bopp ut kaaraay gu wóor. dëgg la mu jaral la lu ne. nit ñi nag fi ne mën nañoo weexal ab sëriñ. téeméeri junni. ci bayre wala wërsëg. mais mënuñ ko ci kaaraange. waa nit ki soo aaruwul. wala wala sàggan la wala. sàggan wala sàggan la. ak jàpp ne maanaam lee moo gën a mooy bayre wala wërsëg bi te nit ki boo bu bu bala nga bala bala bala loo loo loo talu doo ko doo doo doo loo fekku doo ko taal balaa nga am ka ba bay rek alal ak yooyu soo amul kaaraange yàqu ma ngoog mhm. loo fekkiwu doo ko taal mhm, dëgg la bala ngay mën a am bayre di am wërsëg mhm. day fekk nga nekk fi dëgg la waaye soo amul kaaraange ba nekkatoo fi wala ñu def laa defa defa def ba nga tëdd ci lali hôpital yi wala nga tëdd sa kër mënoo dem fenn loolu looy doyati alal wala looy doyee bayre moo tax kaaraange ndaw lu bëgg a dem ca kanam donc fonk soo paree nag moom dooru wut bayre yu saf sàpp dooru wut mhm. gaay yu saf sàpp nag dëgg la ñu mën a ànd nga nga jëm ca kaw dëgg la su ma jógee foofu ma ñëw si sa sa gaay yi laay wax mhm. mooy waa Europe ñooñu moom mhm. ñoo ñoom ñoo la bëggal seen bopp looy def ak ñoom si wàllum kayit doy na waa sëñ bi maanaam lu ma lu ma jaaxal mooy maanaam sooy ñaan ak ñoom si wàllum kayit da nga leen di àppal lu sëriñ yu bëri du def. wala ñoo ni woo ñuy fay seen téléphone. wala naan damaa tukkee. dama maanaam li ngay def waa Europe si wàllum kayit sëñ xam nga man sëñ Diaw yàlla dafa maa dimbale mooy. <laughs> man ku ma woo heure boo ma wooyee. jot la da jot dëgg la. soo ma jotu tamit boo toogee tuuti man man man danaa. la man du du ma sëriñ boo xam ne ndax léeg da ngay gis ku lay ñaanloo ku nekk Europe. naan la dama envoyé sëriñ sama xaalis mënatuma koo dégg. Mhm. man loolu daray àdduna jëralu ma. wàllum këyit. Mhm. dama lay wax ni la. Mhm. ñun dañ cee xam fi ñu ciy jaar. yàlla mel na trop. man ko ci timit mhm. wax dëgg yàlla ndax nit ñi dofuñ. dofuñu de. nit ñi dofuñ. <laughs> dofuñu nit koo ñaanal mu dem omat keneen indi ko. xamal ne. ñaan baa baax gis gis na la la ko defal. la ko waxoon wóoroo ko. yàlla nag mooy nangu. Mhm. waaye sabab day am. dëgg la sabab bi mooy nga nga xam li ngay li ngay def nga xam mooy lan. dëgg la sa micro yi ngay téye. Mhm. yàllaa tax son bi suñu borom la dogal muy dem. muy dem de waaye da nga koo da ngaa maîtriser mbir mi. téye ko dem dem wuti matériel yi. Mhm. xam li ngay def yow moo tax boo defee mu aw yoon. dëgg la wàllum kayit moom ku nekk fii bëgg tukki. suñ jëflante ci kàttanu yàlla. fa ma la nga aw fa. donc da nga da nga amee kayit tukki. ku nekk bitim réew loolu moom waa bitim réew xam nañ ci daal. Mm-hmm. nekk loo xam ne dama koy. nekk di waaw xam nañ waaw ñoom xam nañ man xam naa. Mm-hmm. waaw wàllum kayit moom. dëgg yàlla macha allah yàlla daal dimbale nañu ci daal. Mm-hmm. waaw ak yeneen ak yeneen nag. kon sëñ bi euh, wàllum visa. ni nga mel si wàllum utum kayit. Europe yi gars yi ñi amee kayit. noonu ñu ko raw nga mel si wàllum visa. kayit rek nay kayit rek. nay kayit buy dindi rek même même na doon ci biir réew mi. nga wut ay yor ay kayit bëgg liggéey ci entreprise. xam nga muy visa ba. Mhm. muy nga nekk Europe bëgg am kayit pour ñëw. Mhm. muy nga nekk fii ba loolu lépp ci wàllum kayit la. Mhm. nga nekk fii bëgg a déposer entreprise. bëgg a liggéey. yooyu yëpp ci wàllum kayit la. loolu moom yàlla dimbali ñu ngi ba. dëgg la liñ ci ñaan yàlla mu ñu koy nangul. dëgg ci mbaaxam te am na yaakaar ni kanam la jëm. <laughs> jërëjëf su ma jógee foofu. <laughs> fi may tëjee nag moom dina ma tiis lool ndax nan na da jóge ba Kédougou ñëw te indaale woo si xam-xam naa leer na ma ne si muy garabu ngóora mhm. li nga xam ne dafa jaaxal ndaw yi léegi ndax mhm. ndaw yi laay wax ba paa léegi léegi ndaw yi laay wax ñuy xëy dem di ko wuti te ku xam Kédougou xam àll bi nga ne xam ne sëñ bi li nga siy liggéey doy na waa trop waaw gis nga wàllu ngoow <laughs> laaj nga ma ci lu ma sawar nag muy Kédougou ak wàllum garab yooyu yi nga ciy mhm. liggéey Mhm. parce que képp ku ne Kédougou xam ne euh, am na àll boo xam ne mu ngi fa. macha allah àll kese la <laughs> kay àll kese la kay yàlla xam ne ko. gis nga ah. wàllum ngóor mhm. maanaam buñ ci jëflanteel xam nga damay wax ne. Mhm. dàquma tubaab bi. dëgg la ndax man léeg damay feebar dem ci tubaab bi. dëgg la waaye ak feebar ba ma fay yóbbu. dëgg la waaye gis nga tubaab dalay jox loo xam ne booy waajee sëy danaan la temps minute nga naan ko. pour dem dem dem dem def rapport après mu jeex. dëgg la man dama ne la dama naan la traitement laa lay jox nga faju jeex na amatul man bul doo ñëwati ci man doo demati ci keneen traitement. maanaam traitement ngay joxe. waaw ñu utiliser ko. mu jeex jeex na si yow. nga nga continuer sa kàttan à vie. amatul naan comme boo waree sëy rek nga tàngal ndox def ci sungur waaw nga def meew. yooyu loolu ba kañ. waaw bu fa meew mu nekkul kon doo sëy. waaw ba kañ. waaw traitement lay doon. Mhm. mu jeex mu jeex nga continuer sa sa sa sa sa ngóora gis nga wàllum garab. Ah. wàllum garab. Mhm. yàlla meemul kumpa xam ne feebar bu ci bi ma ciy bi ma ciy faj ngóoraa ci gën a tuuti. ma wax la loo xam ne néew na néew na néew na sëriñ bu ko ñemee wax wala bu koy wax. mooy gis nga jabet. Ah. jabet ah. dama koy faj ci garab. cancer. Ah. noonu asma. asma. maanaam ak maanaam ma tënkal la ko noonu rek. dëgg la ndax jot amul. dëgg la dëgg la waaye gis nga feebar yooyu laa. wóoraa ci gën a néew. dañ koy seetlu comme dégg sànni fële. waaw sëñ bi nag foofu sëñ bi yow mii ne ba Kédougou foog nga am genn représentant boo xam ne Dakar lii lay nekk sëñ bi nag jur yooyu nag. Dakar moom comme li ma la wax lu ma fi indi mooy. <laughs> Euh, ndax man. Uh-huh. Kédougou laay gën a mën a amee temps. dëgg la ci laay gën a mën a euh, am kii kii pour pour liggéey. pour toog waa. waaw sa base la waaw. Mm-hmm. te yàlla dafa ma faa booleeg ay nit. Mm-hmm. ma am fa ay soppi am fa ay taalibe. Mm-hmm. ñu bëgg ma lool yàlla xam ne ne bu may ñoree ñu booy ñëw fi sax ñoom da da leen da leen naqare. <laughs> dëgg la te fa laay gën a stable ndax man damay bëgg ku ma lekk sa weexal faj sa mm-hmm. aajo. dëgg la te Dakar yëngu-yëngu yi daa bari. dëgg la léeg-léeg nag moom yi nga xam ne mënut a ñàkk. mooy ku am entreprise. wala nga am place. bëgg ma sampal la place wala kër ga ndax mm-hmm. yooyu dañ koy samp mm-hmm. yooyu moom mënu ma koo yónnee mm-hmm. damay déplacé wu damay déplacé ñëw defal la sampal la place bi wala sampal la entreprise bi wala sampal la kër gi delluwaat waaye leneen lu mën a doon moom mën naa ko liggéey envoyé ko ndax man chaque jour muy liggéey di envoyé Dakar kii fait Dakar. fu am fi biir réew mi bitim réew fu mu mën a doon. loolu am waaye yii daal moom fu ñu mën a doon moom. Mhm. danaa déplacé wu ñëw fu mën a doon ci Dakar. ñëw sampal la ko. Mhm. defal la loo xam ne ni nga ko bëggee. Mhm. door delluwaay waaye lu moom mën naa toog fu ma ko defal la ko. la euh, fi may tëjee sama émission mooy mbirum noot. dégg naa xale yu jigéen ñi sonal nañ la. ñu ngi noot seen jëkkër yi sëñ bi doo ñu dimbale nga ku ñëwati daax ko <laughs> waaw gis nga waaw du ma noot ku dul. ku mhm. pare pour sëy. Mhm. waaw surtout loolu ku pare pour sëy. Mhm. waaye dañuy am seen i kii fee naan sama jëkkër nekk du seen jëkkër seen i àndoo doo la noot ko ba sawaay bi du mën a bouger. sëñ bi loolu. waaw loolu de man léeg-léeg ñu ci bari. Ah. ku ñëw danaa le danaa la wax ba ba danaa fexe ba ne la. wax la loo xam ne danaa wàcc su ma diggante sama borom. ak ah, mooy. danaa la wax ne la yow ki ngay noob sa jëkkër wala dara. nga ne ma du sama jëkkër. nga waaw. booba man sama responsable dégagé wu na ci. Mhm. boo ne tamit waaye dama ko bëgg damaa bëgg a takk. Mhm. dañoo waxaal takk ba pare. Mhm. sama responsable dégagé wu na ci. booba am danaa la ko defal te su ma la ko defalee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. da ngay toog fan yu néew yaa may wone ma. Euh, ma bañ toon weer nit war naa ko seexul wax def ak koor gi yi ma ko jël audio teg ko ci micro bi koy dégg ci koo xam ne moom demoon na ba moom sëyam moom sëyam demoon na bañ jàppal ko suur pour pour pour pour pour pour fase ko ay miraaral nag. ak ñeneen ak hmm? ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. wallaahi la azim. dëgg la li ma lay jox. bu dee góor. Hmm. Hmm. sa sàkkara laa koy def sa jëkkër ba addunay tukki. yow bu dee bu bu dee góor gi laa mu def ko sàkkaraam sëy ak jabaram. ba addunay tukki lu mu wax jabar ji loolu lay wax. lu mu ne ko def lu mu lu mu bëgg mu def ko moom lay def fu mu ne ko toogal fa lay toog du ko yemale ku dul moom. bu ko joxee góor waaye tamit góor guy dof dof lu ba sa jabar ñëw ci man ne ma nool ba sama jëkkër yi. su ma ko joxee ku jë ku jigéen mu def ko ci poyam <laughs> mu def ko ci kanamam sëy moom ah. barki Serigne Touba bu la laajoon ay milliards soo ko ëmb da nga dem ko ñëw jox sa jabar yow képp lay bëgg yow dong lay bëgg su fekkoon amul jabar amul beneen jabar mm-hmm. dootu ko am su amoon keneen tamit. même doonte yaa ngi ñëw. yow lay jël teg la ci kaw moom. yàlla bu ko xale yi jigéen ñi dégg yàlla buñ ko dégg. waaw te lu yomb la. yàlla waaw loo xam ne bu ma la koy jox mën jàpp ne am ndox la def ko ab liquide nga def ko sa kanam nga sëy ak moom. la loo waxati yow man yaa koy gënal sax ay waajuram. boo bëggoon milliard. Hmm. dem li jënd nga ñëw maanaam daal loo loo loo mu ne waaw loo bëgg mu def ko. ni mu lay bëggee nag moom dana dem ba moom da koy dépassé moom boo ko defee jigéen boo ko defalee jigéen ku ragul yàlla moom mën naa dem ba jàpp bu moom takk ko ci na ba bakkan bi <laughs> yàlla buñ ko dégg yàlla buñ si daan émission bi yàlla buñ ko dégg ñoom waaw fi may fi may fi may tëjee nag suñu jaw waaw tëjal kay mooy <laughs> ndax jot amul jot tëjal kay weeru koor te man fu <laughs> eh, dañoo am loo xam ne dama koo yéene doomu aadama yépp mooy mooy bàgg yoo xam ne ndax ah, man man lu may liggéey lu baax bu bëggoon naa ko laaj lu may liggéey lu baax mm-hmm. sama bopp laa ci jiital nag man sama bopp mën a gën a du bañ naa dëgg la mooy bàgg comme façon bii nga xam ne moom laa takk. Mhm. muy ah bu la neexee àq bu la neexee bii. Mhm. binduñu alxuraan def ci nag maanaam wàllum sunguf comme li nga waxoon ne wàllum garab ñun dañ koo xam te dañ koo man wan naa ko ci Serigne Touba ak koor gi. Mhm. buñ la ci defalee bàgg gi defal la ci pour wërsëg wërsëg. maanaam day dugg duus fu la neex lay dugg. waaye kenn mënut a muusa kawaani sa dund. heure boo xëyee boo amee junni tey suba ñaari junni ginnaaw suba ñetti junni. day avancé rek. day avancé rek booy am 50 moom moom bu fekkee ngay am 50 ans moom kenn mënut tey nga doon am millionnaire moom. millionnaire bu dëkk nag moo doon ay mili mooy doon milliardaire. dëgg la te du toj moom. dëgg la comprendre ndax man damay liggéey jaaro ay alxuraan yooyu noonu. Mhm. Mhm. waaye alxuraan mu wala jox ko nit mu juum dugg ci. mu dugg waaw mu def xam ne waaye kii ko xasee takk du toj. te barki Sëriñ Tuubaa man ni ni muy ni muy xëccee wërsëg. Mhm. soo naa soo am na lu muy demee nga dem ba ci yàgg sax yooyu yaay ti tekki ko. ndax da nga naan ndax da nga wóorul. loolu laa ci liggéey tamit bopp bay rek waaye loolu laa ciy liggéey bopp kaaraange te loolu lépp nag duma ci laa laal naan ay garab rek laay boole ay composé composé composé. garab kese moo tax ma ne la garab ni ma ci mën a fajee. Mhm. ni ma ci mën a indi wërsëg. Mhm. te nag noonu laa ko mënee ci alxuraan yi. dëgg la dëgg la. wallaay dëgg la ndax jàng loolu moom mu yóbbu kii du. dëgg la dëgg waaw moom daal. Mhm. ku ñu yeme sa aajo faj. jërëjëf jërëjëf ma ba wax la looy tàggatoo ak gars li may tàggatoo nag. mooy saa li may wax sax ñi nga xam ne sax man ñoo nekk man doon samay taalibe ak nangam ak nangam. Mm. mooy ñuy jaamu yàlla. Mm-hmm. ndax loolu mooy mën a tax koo ñaanal ku la ñaanal mu mu antu. dëgg la ñi doon ay ndawit ñu mm-hmm. fonk seen i waajur. la lu ñu am bokk ko ak ñoom. ñu mm-hmm. leen mënta jox lépp séddoo ko ak ñoom. dëgg la dana tax boo ñëwee ku ci ku mel ne sëñ Abdou Lahad. bu la ñaan nga day day yomb a jàppandi. dëgg la te ñu góorgóorlu te fonkaat suñu bokk bopp. dëgg la te ñàkk suñ bopp. aar suñu bopp. dëgg la ubbi suñu bopp. dëgg la yàlla dimbali ñu. dëgg la jërëjëf ñu ngi sant ñëpp nag. di gërëm ñëpp. jërëjëf waaw ñu ngi jégalu nag ci émission bu gàtt bi xëy na jot jéegu ma yor xam naa. mën naa man kay man kay di tuddee mbiru jigéen ñi seen affaire man laa bëggoon dara seen émission bi. <laughs> mën naa bala ñëw wari danañ fi ñëwaat. incha allah da dawalaat fi beneen émission. d'accord jërëjëf jërëjëf Diaw sant nañ ñëpp jërë ngeen jëf